bu la yàlla maye waruloo ci peew am naa amuloo dama lay dawloo ay ndax alal di la liggéey loo ba weer wi dee ay ay adduna amul benn solo ay jonga ma yem sa kër gumba tëxlu sagal sa jëkkër bul ko yen yen bu diis ca seeni ñam yaa bu leen ca siisoa nene moji baba moji bingal bona taama Ousmane sama waa jaa ngi nii nene moƴƴi baaba moƴƴi bingal bonatama ousmane borom wal fajiri ngi ni ousmane sama aji so deg cawar moɗum yora faali alkare bandar ndiay ajaratu nene ndiaye yew lañu dégg alaaji sëriñ mbay bayu caaco mbay gille lobelaam yaasin lobelaam alkayre bandar njaay ay Hajaratu Ndeye Njaay yaayu Caaco Mbay yaayu Arwa yaayu Anta Ali Taaw sona degen sa maam tanu ko jam kolok talaatay neeroy yow la ñu dénk alaaji Serigne Mbay Madak Bintak Njaak ak Morika Mbay ku ci mer yoon nib jaam eccal ma lemin faal ma lemin jaaji dama mi ci rengaay dina dem ba fan si club dambaay xale ay woy Fallou ñi ngi sama sang mbëggeel dafa neex kenn du ko fawee Fallou ñi ngi séeri Diop Ndiaye bu ko fawee mbëggeel ñi ngi séeri Diop Ndiaye ay waay mbëggeel dafa neex kenn du ko fowee ki nga bëgg ci sa xol bi yow bul ko fowee waaw waaw si xaddu nugum nugum mbëggeel dafa neex kenn du ko fowee ku ci am ku la nopp lool bul ko di fowee ay waay Ousmane waaye mbëggeel dafa neex kenn du ko fowee mama soo da lay sentir du ma ko foowe waaw waaw papa mbaay mbëggeel dafa neex kenn du ko foowe xaytam mi nga bëgg lool yow bul ko foowe ay kara amet Diop ay ay waay sam bawol bawol mi du ko foowe ku ci nekk ki lay jooyloo yow bul ko fawee Ousmane mbëggeel dafa neex cun bitik damu ndaw séeri Aïcha yow bul ko fawee mbëggeel dafa neex kenn du ko fawee mbay sapar sapar waaw waaw mbay sapar sapar sama rakk jaa ma di la wayal mbëggeel dafa neex kenn du ko fowee baabooy cubaalo mbay sapar sapar waaw ay waay ndaanaan nga ñaari yoon kenn du ko fowee yaay borom Tuuba yow bul ko fowee ay Ousmane ana cuun butik yow cuun mbëggeel dafa neex kenn du ko fowee ki nga bëgg ci sa biir xol yow bul ko fowee cuun butik waaw eh, Thioune Boutique ki nga bëgg mu bëgg la yow bul ko fawee mbëggeel dafa neex kenn du ko fawee c'est Valentin waaw xanaa xamuloo ki nga bëgg mu bëgg la waruloo ko fawee mbëggeel dafa neex kenn du ko fawee baabooy kenn du ko fawee may mun a juuf sama jigéen bi maa ngi lay wayal boo amee ki nga bëgg lool bul ko di foowe ay bursin ku ma dofe jëw mooy sa maam ayaw may mun a juuf mi may bëgg a jiine yaayu asu njaay magi umu xayre jigéenu fàllu ñing Sëri Diop Njaay bàyyi seex yaa nge wooy mooy bëgg mu bëgg la bul ko di fawee euh, booba léegi rek gis ngeen dàmbay ni mu fay yëngalee ak euh, li nga xam ne rek moom moo di plateau bi euh, Cheikh du mel na ni jamono ji nga ne ku fi indaale station lan ah man kay damay dama nëbb boppam wax dëgg yàlla ah, damay kay sëñ bi nekkati matériel yi mu denc ëpp yi mu eh. ko gëjee def du kat dama ko maanaam ko supprimer sama dund waaw waaye ndekete yooyu dese naa góos bu ma làqoon rek te waa wenkat am <laughs> damaa la ma la ma dox fee eh. sëñ bu ma ko góorgóorloon ci yoon ba lépp léegi seex naa <laughs> ma def ma ko góorgóorloon lu baax seex naa ba yàgg mbaadu daam bay kenn du yow yàlla nga ko du fan waaye Sall Bawol Bawol mel na ni yow tamit yëngu nga de ma ak wàcc nooy fi mu toll dambaay comme ni Cheikh di wax da koo fecc loo. Hmm. Ah, man dama dogu woon ne sama fecc jeex na. Hmm. saab sëriñ dama cee bettoon. Hmm. cee bettoon. noonu la ci defee. booba la woy Waly Seck yi dóor génn boobu nu mu cee sax. wuy yàlla bay bay way géwél laa. booba ah, maanaam damay door a jugee place ba. sangu sax defuma ko macha allah fekk way wi kii rek ma daw jugee tànn bi rek ndeke sama sëriñ daa gane ci taalibeem ca koñ ba te yëwuma ko. jugaay wi neex. tëgg mais xam nga day ànd ak i bool comme ñii di ànd ak tart tart tart tart bool yi. ma summi daal yi tax kenn wu ne aw fenn. ma juutu rek lëmbal di jóg. sama sëriñ bi ñëw waa Kiiru Sall. moom naan bay waaye géwél laa waaye ma ànd ak waay yu nekk Waly Seck aayee di génn rek maa Kiiru Sall waaye bi ma génnee ba génn sabar ga toog naa ñaari weer yoo xam ne dem ma këram. <laughs> booba laa taxawoon waat nag ñaam am fecc banaa ko. ci gëjoon. waaye daam mbaay mi di wax dëgg yàlla. waa ji dambaay dambaay li fii ndeke du dambaay de. dambaay dambaay gi nii. dambaay yëngal na ko. borom njañ ñi mel ne macaron bu faraan di dambaay dambaay du. <laughs> voilà Cheikh Abdou Nougoum Nougoum euh, nee nga Saint-Valentin euh, ni ñu ko daan dundee ak ren wuute na euh, gis nañ takku masque mi léeg-léeg nga dem ci pâtisserie bi sax li ngay wax sax kenn du xam lu mu doon loo ci wax. dama ne Saint-Valentin. Hmm. dégg naa daan na neex ndax man daanaka soxna. Hmm. awma ko. Hmm. aw ma soxna tayit daanaka gelit moom daanaka tubaarkàlla hmm. nu nu nu kulóos loolu amoo valentine daal waaw wax dëgg yàlla aw ma ku may góorgóorloo di lënga ko kott léeg nu def dara kii laa la bëggoon a may waaw kii de moom ah waxuma ko waaye ku ma ko waxal ma jël de <laughs> maanaam moom daal mel na ne. Eh. gis naa ne sax maa gën ci moom waaye xamu ko léegi lu kon ne. waaw eh, eh, Saint-Valentin. Mhm. daan na neex ndax daan naa gis léeg nga gis lu xonq lu takk ci buntu kër ñaar lëkkaloo sëñ bi. Mhm. waaye ren erreur dana ci am. Mhm. lu tax erreur xam nga gars yi léeg-léeg dañu topp seenug bëgg ba ba ba mu nëbbal leen seenuk dëgg. te ku ne xam na ni. maanaam corona mi day gan gu texet. gan gu texet la ndax ba mu fi duggee ba léegi ñu béegut lànk. te léegi corona bi tax na vingt et une heures lañ wax ñëpp nañ tëri te xam nga ne Saint Valentin balaa neex vingt et une jot mhm. nga jël sa ailier gauche dugal ci sa poos keneen lonk ci loxoom ngeen ànd jiit la loolu daa neex bras de ci bras waaw waaw góor yàlla na gudd fan <laughs> bras de ci bras de moomu lu am solo la léegi nag loolu bu vingt et une heures jotee bras de woo bras de ba noppi sol lu xonq ak lu ñuul mujj gi amoo lu dul ak ak sifle topp sa ginnaaw ni la firip nga naan ko lu xew mu naan la tëri mbaa duma la day métti <laughs> te saint bu àndee ki masque wala nga seelu door a génn du neex faaw nga ànd moo tax ma ne Saint-Valentin ren mhm. tey ci ndax dana yee fitna ci réew mi mhm. loolu rek laa ne woon naa ko barkeeloo voilà euh, wax nga ne loolu nga ne woon na ko barkeloo ku nekk dund nga ko temps booy ki nga njëkk wax ne ko da nga koo bëgg noo ko waxee ak nu mbir ma num mu demee woon non man nag yaakaar naa moom man maa wax parce que damaa ragaloon wax dëgg yàlla damaa ragaloon jigéen lool damaa jóge daara ji ñëw sama benn xarit bu ñuy wax Mamoudou ak suñ Modou eh, booba ne damaa ñëw ñu doon ay pro di dawal saret booba ana Cerno booba Cerno mi ngi fi booba Cerno moom mi ngi jaay booba Cerno moom yàgg naa doon pro moom di doon naan teg lépp waaye man boobu du ma ko fréquent ndax li daan sol da daan sol lu xotti ko fii tent fii xam nga man nag booba daara ji laa jógee damay sol maa nel boo xam day mel ne péncum daaru bi diw ràkkal diw ko sama bopp bi bam niin ma ñëw ñu ma am na boobu ne koñ bi daal di cukku cukku lu moom yaakaar naa yaa ci doy xam nga comme ni ko Mbaye expliqué rek ma ñëw premier jour bi may njëkk a dajeeg moom ci réception laa dajeeg moom mais damaa gis buy wax day regaju moom. moom ndaw si. ma man mi dama naa lam bu yàgg téyeguma ko kii di regaju bu ma ci duggee musibaam <laughs> ma takk saa fit comme kat daara ji laa jógee damaa war wane ne damaa am fit. ndaw dañ wool wala yaa dem fekki. bi mu ñëwee. waaw dafa hmm? ñëw dama doon séccu pour mu xam ne man maa koy woo. ma naan mu ñëw ba ak ni ma loo ma doy rek mu ne ma ma ne ko xanaa ko loo <laughs> mais sama siiju googu ca kër gi laa xam ne ndaw si ñibbi na ci ron garab gi laa ko bàyyi keroog sama siiju googu dugg naa ba suñu sama yaa naan ma xanaa da nga lekk kaani <laughs> Cheikh Abdou loo lekk sa siicu gi mën na ko dara doomi bàyyi di wujje ci ruq bi bu ci kilifa yi waxut dana yeefin na ci goñ bi te booba siicu googu moom ma ko yóbbee <laughs> barki sëñ beeg bàyyi ma. maanaam Sall noo ko dundee yow laata may jox maam Fatou ak maanaam ki ma war a jar a bëgganteel ndeysaan la xam nga ne. ñun ñi doomi Mbàkke ak Touba dañoo baaxoo di jógee daal ci daara. man mag boo xa boo xamee saal boo ma xoolee rek xam ne ma damay ñor di foo xam ne àgguma fa. Ah. ndax man sama yalwaani rek. 750 ah. la daan dékkee. da ngay yalwaan waaw. sama sëriñ 200 la daan dékkee man 750 laay dékkee bu ñu leen sasee ku ne 1000 man samay 1000 dama ciy wàññi 200 jox ko 750 yi man dékkee ko. Ah. mu ne moom peut-être 1750 da ngay ndekkee ma ne ko moom laay ndekkee rek ndaw si man damaa yëgoon sama bopp. waaw léegi ndaw si ndaw si yëgoon gel bi ma njëkk am ci suuru Saint-Valentin laa am laa la wax ki ma njëkk am. ci suuru laa ko am. booba ci simbu gaynde laa dajeeg moom. maanaam ñu ne gay ñu teg ab paan def kaani ci digg ci digg baas bi ne ko ñu jàpp ne lay sëlam ci kaani gi. ñu ne grand lion suñ buntu kër la doon solo. ndekete grand lion bi rakkam moo mooy ndaw si ma waroon nañ dóorug Lamour te yàlla dogal ñu ànd ndaw si génn waa ji dàq ma bu mu dugg suñ kër. ndaw sa fekk ma fu ne ma yow kii sam kër dañ doon waxtaan a avant suñu bi ji commencé mu ne ma yow bu bul bul daw bu la jàppee naa ko wax mu baal la kii sama mag la. ma ne ko yow gaynde goo xam ne du wax. da nga ni ko baalal kii ba dama def lu bon. mujj gi nag maa ngi dooni xarit. barki sëñ Saaliw hmm. yendu nañ neuf heures suba ba vingt et une ko wax dama laa nopp hmm? lu ma mus sa dal dal dama keroog sama xarit boo xam ne ñoo Dakarloo ay nekk Baye Mor Ndiaye moo dem ni ko Salmé de hmm. neen dalaa nopp ndaw si ne ko ne ko ñëw waxal boppam ma ne ko tubay fas am na de ma dem daan ak ndaw si toog maa ngi moom ma yóbbu ko ma yóbbu ko ca jaaykatu reer ba jëndal ko reer dem jëndi ñooy kanet yi jënd ñaari kanet jël benn jox ko benn lépp rek bëgg mu sib mais ndaw si da koo xam ba noppi di ma ci koñe mujj gi ma naan ko nan ànd photo man daal i ñàkk fayda gu ne wax naa ko mu ne ma yow boo amee looy wax wax ko yow 9h ci ba 9h ba 9 ci guddi 24h looy wax wax ko ñaari baat xanaa du baat ak tontu dong hmm. ma ne ko baat ak tontu bu lan bëgg naa mu wax ko de ma ne ko lu baat ak tontu hmm. mu ne ma dooni dama laa nopp benn yoon rek mu jeex ma ko voilà <laughs> mais léegi euh, mel na ni yàgg ay jafe-jafe ci mbëggeel mel na ni am na benn saalixaat boo doon jéem a waxal. Oh. saalixaat. saalixaat jumaa jalaa dajeeg moom fu côté. dégg naa ko. waaw ah. saalixaat ba jumaa jalaa julli àjjuma ba noppi ndaw si muuru xam nga jël 24 heures xaw ma 26 heures raal ko fi mu xonq cur. Ah. ma ni kii. Ah. dagan naa dóorug la muur de. dem ca moom daan ni ko soxna si mu ne ma lan la. anta sal jun ximaarun daal ni ma sal jun ma ni ma ni ko kii moom xanaa bolog bee tax ma yaakaar damaa jàng arab boobu yow sama turki njaareem bi laa bi am poos bu dënn bi moom laa sol daal li carax yoo xam ne sëñ bi ma dem wax sama waa ji bàyyi mor ba maa ngi fu ñuy jëm ñooy ànd si ma dem mu ne ma nee ko gina ginaar la xawma lan mbirum ginaar la ma féetale ci ginaar nit kenn du ko topp ba ci ginaar la ma féetale baa ma ni ma kii nii rek nee na ginaar ga mana ko yow sama kanam da nga cee gis génn kanamu ginaar da nga cee gis daray ginaar moo tax nag saali xaar yi foofu la leen ba saa waa ji dégg naa ko muy wax saali xaar yi waaye xam naa bi mu dajal ak bi ma dajal bokkut bokkut bokkul euh, ak euh, Amy Cheikh jombul am na yu ngeen bëgg a laaj Cheikh Abdou Nougoum Nougoum ma bàyyi leen laataa ñuy tàggoo mhm. ok Cheikh Abdou comme quoi xam naa ne damay dégg ñu ne célibataire yi comme quoi ñoom amuñu soxna ni ñuy feetee seen mbëggeel ci boppam dina xaw doy waar ndax tey ji euh, bari gel yoo xam si ne dinañ koy bari gel mu bëgg a laaj Cheikh Abdou moom ban gel la ci war a àndal ci gel yi waaw bëri gel de maa ngi koy dégg ma waaye man nag euh, doxewu ma noonu xam naa ne daal bu fekkonte ne sa bu dee damay doxaan moom bu ma sañoon ku amut kilifa laay am waaw ma sañoon bu may doxaan damay wut ku amut kilifa laay doxaan bu may takk takk ku am kilifa ndax li tax mooy dama fay doxaanoon ab ibaadu muy muuru sëñ bi waaye lama cat moo kooku moom découragé loo ci jigéen mhm. ndax ndaw si mënuñooy génn mbëggeel faaw ngay am léeg-léeg nga nga jonge jongelu mhm. ndaw si dama ko testé un mois ñu nekk musuma wax daray jonge mhm. benn bis ma jekki-jekki di ko testé septembre mu naan ma subhanallah moom daal lu ma ko wax mu ne ma subhanallah sëñ bi man looloo tax ma découragé wu ci kuy muuru moom maa ngi jégalu ci côté boobu waaye bëri ci ñuy muuru ñoo xam ne bu dul saalixaat yi nga moom maa ngi jégalu ci ñooñu moom mhm. waaye nag ab ibaadu koo xam ne subhanallah rek la commencé gis naa la nga nangu gelu mbay sapar sapar ah. mbay di ko toxaan nga nangu ko non bokkul mbay mbay <laughs> mbay daa jum daa def erreur de marketing daa topp ak bëggam ba bàyyi dëggam ma ñëw di ko dellu si dëggam ngir mu bàyyi ak bëggam loolu xale ba <laughs> non nangu sax ndax daa mel mbay daa jaaral suuf ba ba yàq sab der ndax ndaw si dama koy woo léegi ñu naa ma ndaw si rek laay jot ki ne ci ligne bi ki nga xam du wàcc votre correspondant moom mhm. chaque jour moom laay jot <laughs> xalaa kulli yàlla ma wooyee ñu moo tax correspondant ki ngay woo day sangoo ki ngay woo day julleeg noonu lañ may xam naa liggéeyu mbay la waaw xam nga bu fekkente ni dangaa xaw a saayire yow ku ki mhm. ba noppi nga bëgg foo ko wooyee ngeen kàcce ko ngongun passé maanaam muy neex yooyu mhm. boo ko wooyee fekk amul kilifa buy génn du tàggoo mhm. alo ci loona yaa ngi jàmm maa bopp ko mu ne si ñëw Mm-hmm. mais ku am kilifa mm-hmm. allo booy dama laa solo mu yii sama papa dafa fiir vingt heures doo génn kër gi mm-hmm. loolu neex léegi nag booy takk da takki koo xam ne am na kilifa booy doxaan doxaan comme kilifa ah. li mu bu dee takk day takk ku am kilifa yéen a koy dégg morale li tax ma waxaale loolu mooy conseil la pour ñenn jigéen ñi nga xam ni ñi ngi def erreur seen côté parent xam nga dañuy comédie demee dañuy joxe leçon morale parce que leer na ma ne média bi àdduna bépp koy seetaan mais bu fekkante nit day ñëw ci yow à tout temps da la wax li mu bëgg ci yow mhm. tey nga di ko ko nangul te doo xalaat yow lan la mën a indilaat suur naa 100 pour cent bawal bawal 1000 pour cent saa Touba ma juddoo hôpital Sëñ Mudu 23 sur 30 kon du ma ci li ma ne laa gëm Touba laa am lu ma fu ma dem dama faa rooti mais bu sama nap feesee Touba laa ko indi ku may jox itam te li may jox jàppooni sëriñ bi mm. laay nooyee lu amut surna mm. di siyaare Touba gépp di di njaale nag nga xam ne jëriñ bu baax ci yoon yi dafa laa ko fane suñu aatu jaañ mm. suñu borom yokk ay leeram te dajale ko sëñ Touba di nuyu ñëpp di leen wax itam ni gars yi bu ñu def erreur ci ci couple dafa war a ànd damaa romb benn waay boo xam ne ñu ngi ko jàpp fii di ko dóor dóor yu metti sëñ bi jaawale kooku sàcc ndax ki mu doon génnal dafa gàtt ñu yaakaar ne sàcc xale te loolu bu ñu doxaan nañu ñu tollol mais musiba dal leen de lii daal laay wax sal nga tàggoo ñu jeexal tëj euh, plateau di baalu àq di baalu àq ñëpp euh, lii dafa am solo euh, lu Sénégal lii doo nga fi nekk bu doon faral di wax nii maanaam dëkk bi bu ñu ko joxoon comédien yi kon le àdduna neex ñi ñi daan ree daan ree te loolu stress bi nit ñi ñi dañoo fees dell ak stress couvre fa fii nangam nangam fii couvre ma man woon woon suñu su ma tuddee couvre fa ay ay ay jooy damay jàpp daa am ndaw su ma doon doxaan daaru xuddoos bàyyi ji muuru muuru la bàyyi ji muuru muuru la day ñëw boobu couvre-feu bi ñu ngi ko def vingt heures boobu defaguñ ko sax vingt et une heures bàyyi jël euh, laissez-passer la mooy oto yi nga xam da ngay ñëw mooy laissez-passer yi la kii di bindal rek ndaw ci dama ko doxaan ndaw ci dama ko doxaan un an onze jours mu jigéen ñu naan mu yebalal say mbokk xanaa amooy mbokk may jël nijaay jàmbur jox téléphone bi naan ko wax la nekk ko sama nijaay la waa naan nee ko naan sama nijaay la après ma ñëwee rek nanguma sama nijaay dëkk fi nag Mali laa ko dëkkale ni ko ko Mali laa nekk rek su ma ñëwee danañ ci waxtaan si mu jigi paa bi ne man sës naa ñëw fi damay dellu semaine bii damay dellu ñëw fi boo fi ñëwut keneen ku fi ñëw dinaa ko ndax jigéen ma toog àll la ma ne ko yow 21 heures couvre-feu nga tëdd ci sablal kilime ko su may dugg sa kër laay fekk su may demaat sa kër laay génn wacci leen ci biir kër gi man maay dox ci mbedd yi man la ñuy dóor man la ñuy xëlam suuf mu ne ma jigéen li ma la mën a xamal daal jigéen ma toog àll ma ne ko na doon ma toog ron lan na doon matt ku ron lal maa ngi fii bu doon dama koy bañ tey suba keneen takk suur naa ko. voilà <laughs> voilà jërëjëf euh, ñu ngi koy sant baax di ko gërëm ñu euh, euh, mu nekkoon Saal Bawal Bawal tey ci plateau spécial bi nga xam ne rek moom la ñu jagleel lu jëm ci Saint-Valentin xam ngeen ne Dame xal la de ngeen li nga xam ne rek def na ko ci waaye tamit Cheikh Abdou Nugum Nugum waaye tamit Thioune Boutique Mbaye Sapar Sapar ak sunu invité yi nga xam ne rek amoon nañ leen ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm sant bu baax Ousmane Sarr mi nga xam ne itam jàppoon na ci jotaay beek mboolem ñi nga xam ne euh, nekkoon nañ file Arouna Cissé ak euh, Thierno Faye ak euh, Moudou Diouf ak Khadim Fall ak ñëpp ñi nga xam ne rek ñëw nañ ci jotaay bi ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di leen jox daje incha allah ma bàyyi la maam Fatou nga tàggoo ba beneen yoon incha allah macha allah El Hadj aussi comme ni nga ko waxee rek jotaay bi gis nañ ni mu daal di demee ndax amoon nañ fi ay invité yoo xam si ne ay comédie lañ dañoo ree ba tas ne xam ne tamit euh, feetu la ñuy feetu ndax tamit mbëggeel dafa aaja tamit sa xol di bëgg ngay reetaan ba tax na tamit gisoon ngeen fi ñoom Cheikh Abdou Ndugum noom ak euh, tey ji Mbaye Sapar Sapar ak yeneen i comédie ak ki nga xam si ne tamit moo di Dambay Xalla tamit dégg ngeen ko ni mu daal di ibbee jotaay bi defil lu neex lu am solo loo xam si kenn ku nekk ñoo koy bëggee ñuy bëggee ñuy siyaarwaat ñëpp nag ñi xam si bi yi di sant tamit suñ cameraman yi Modou Diouf ak Thierno ñoo ngi leen di sant bu baax ak ki nga xam se ne jàppoon na ci jataay bi euh, mooy Cheikh Ba ñu koy sant baax di ko gërëm di sant yéen nga xam se ne yéen doon topp ci jataay bi di leen jox dox daje ci beneen yoon